aoudu billahi min alsheytaani irajim bismillahi rahmaani rahim wa bihi nastain wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ànd ak ñun ñu ngi leen di nuyu di am mbégte ci dellu siwaat ak yéen ci jotaay bu am solo bi fii ci tuuba Daarul Minnan mu doonoon wàccaayu koor gi ci jotaay xam-xam yi nga xam ni académie minal baqadim lil ulumil islamia dana ko ci amal ci kilifteefu cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif général des Mourides waaye ci njiital sëriñ cheikh Khadim Mbacké ni cheikh Mouhamadul Mountakha feggoo ci ak sëriñ maam sëriñ Mountakha Mbacké Mamor Pakala ak ci njiital euh, comité scientifique bi di sëriñ cheikh na Mbacké Abdoul Wadoud ak boroom xam-xam yi nga xam ni teewe nañ jotaay bii. li ko wund nag mooy waxtaan yooyu nga xam ne dañ koy amal at mu jot day am ay tomb yoo xam ni dañoo baaxoo di ko tànn muy tomb yoo xam ni dana aju ci wàllum diine ngir jàppale nit ñi xamal leen ak fàttali leen waaye it tomb yoo xam ni dana dugg ci li nga xam ne mooy dundin wi nga xam ni doom aadama yi danañ ko soxla woo tomb yi nga xam ne danañ ko soxlawoo ci dund gi mu di leen ci jàppale loolu nag moo waral tomb yooyu nga xam ne tànn nañ ko ñu war ko fésal war ko siiwal ba ñu xam programme bii nga xam ni dëgmal nañ ko ci koor gi nga xam ni moom la ñuy waajal bu ci suñu borom àndee subhaanahu wa taala euh, ci atum mille vingt deux waaye muy dëppoo ak euh, mille 1443 hijriya tomb yooyu nag sëriñ euh, maam Balla Mbacke Mokhtar moom moo koy gaaral bismillah. jërëjëf sëriñ Mokhtar ci kàddu yam solo yooyu comme noonu ma ko waxee rek ginnaaw bi ñu jaaree si Muntaxa ñaan ko mu yàgg fi. Euh, waxtaan yi kon nii lay tëdde ajjuma ju njëkk ji tom bi nga xam ne moom lañuy ñu war a waxtaane mooy addawaa'irul muridiyya ad dawru wa tatwir al matlub mooy daayiray murid yi euh, rôle bi mu war a joué ak itam euh, joyante yiñ ci wala jubbanti wala defaraat yiñ ci war a def ki nga xam ne mooy waxtaane waxtaanoo mooy docteur Serigne Khadim Silla di feggoog Serigne Cheikhouna Abdoul Wadoud comme modérateur bu dee ci ajjumay ñaareel ja tom bi nga xam ne moom la ñu war a waxtaane mooy euh, manhaju cheikh fi taamuli mahal muxaalif muy euh, anam gi nga xam ne ci la sëriñ bi doon jëflanteeg ñi nga xam ne dafa wuuteeg ñoom euh, xëy na ci ay gisiin wala ay déggin ki nga xam ne moo ko war a waxtaane di sëriñ Abo Mbàkke mu sëñ Bés Moor mu sëñ ki nga xam ne mooy modéré jataay ba di sëriñ Muntaxa Mbàkke mu sëñ Alaaj Basiru bu dee ajuma ñetteel ja tom bi nga xam ne moom la a waxtaane mooy al miraasu bayna nazari wa tatbiix mooy miraas li ñu ndono diggante li nga xam ne moom la ci xam-xam jàngale ak li nga xam ne mooy liñ ciy jëfe ki nga xam ne mooy euh, euh, def waxtaan wa di sëriñ euh, Mbàkke Abdourahman di feggoog docteur sëriñ Samb Bousso mu war a modéré jataay ba bu dee ajuma ñeenteel ja tomb bi xam ne moom la ñu waxtaane mooy ahamiyatu idraji sirat Cheikh al Xadim wa taalimihi fi manahiji dirasiya muy solos dugal euh, dunduk sëriñ bi wala siiraam euh, ci ci euh, njàngale mi nga xam ne mooy suñu système éducatif bi solo sim am ñu jël nag téere boo xam ne siraajul muni ak ah, siraajul muni la tudd joxe ko ci misaal muy téere boo xam ne sëriñ Cheikh Khadim mu sëñ Muntaxa moo ko taalif kay def waxtaan wa bi sëriñ Fadil Bousso Hassan di feggoog sëriñ Muntaxa jotaram war koo modéreel jotaay bi kon ci tënk loolu mooy euh, jotaay yi nga xam ne war na am ak euh, ñi nga xam ne ñoo ko def ñaan si sama borom defal ngeen jëf euh, mbokk yi kon ginnaaw kàddu yu am solo yooyu nga xam ni sëriñ Maam Balla Mbàkke Moxtaar jëloon na ko ngir gaaral tomb yu am solo yooyu ci noonu ngeen ko déggee noonu rek la ko boroom xam-xam yi waajale mu doon yoo xam ne tomb yi li mu woon la waaye yooyu mu siiwal nag mooy yi nga xam ni jàppees na ni moom euh, warees na ko mën a waxtaane ci koor gi nga xamante ni moom la ñu dëgmal kon nag li ñu daal di def mooy jox sëriñ Cheikh Khadim Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadul Mountakha mu daal di am kàddu yoo xam ne dana ko dénkaane ak fàttali yoo xam ne dana ko jagleel waxtaan yooyu nga xam ni moom lañ dëgmal te sëñ ma Balla Mbacke Muxtaar doon ko gaaral bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala ali asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ah, kon nag ah, ginnaaw bi ngeen déggee leeral yooyu nga xam ne eh, suñu Moxtaar Seck wax na ko waaye ngeen dégg ngeen déglu déglu déglu tam suñu maam Balla Moxtaar ni mu leeralee eh, li ñu war a waxtaan muy programme bi li ñu war a eh, waxtaan ci koor gi muy liggéey bu am solo boo xam ne dañ koy liggéeyal Serigne Touba di ko def ngir yàlla rek di ko liggéeyal Serigne Touba kon nag dañuy dellusiwaat rek di sant yàlla. ci dajale gi ñu ci dajale waat bañ nekk di ko waajal nañ ko daan waajale te ñu te ñu yàgg koo def waaye yàgg koo ànd eh, di ko def nag kii di ko Cheikh Mouhamadou Mountakha waaye di ko defal ci jiiru sëñ Mouhamadou Abdoulah waaye di ko ànd ak nag mbooleem waa académie bi eh, rawaat na lajatul almiya bi nga xam ne suñ Cheikh naa Abdou moo ko jiite waaye gis ngeen mbooleem borom xam-xam bi nga xam ne ñoo ko ñoom lañ ko àndal te yàgg <coughs> sant bu baax a baax ah di woote itam nañ ko daan nañ defee rek ndax dañ ko daan ñëw di ko ànd ak ñun Euh, xam ne ñoo ko bokk euh, kon tam ñu ngi leen di woo ñu ngi leen di woo rek euh, bëgg ngeen ñëw di ko teewe si ci jumaay Daaru Minam saa yu sëlmalee àjjuma rek daal di ci daal di koy tàmbali kon nag ñu leen di séntu bu baax a baax di ñaan yàlla nangu ñu liggéey bi defal ñu tawfeex àggal ñu ci ak jàmm bañ def ko ni mu gën a mate ni mu gën a rafete waaye ni mu gën a gërëmloo duñ tubaa gën a loo yàlla suñu borom kon na jël leen jëf ci saa ko mu la xeer gi sax jërë ngeen jëf mbokk yi ci kàddu yu am solo yooyu ngeen teewlu muy kàddu yi rote ci sëriñ Mame Balla Mbacké Moukhtar mu gaaral tomb yi nga xam ni borom xam-xam yooyu danañ ko fa waxtaane muy am solo yu mat a bàyyi xel te teewlu ko lool. ni noonu it sëriñ Cheikh Khadim ni Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké kàddu yooyu nga xam ni euh, leeralaat na ko ci li waral woote boobu ak ni ngeen koy baaxoo di wuy si. moo xam ñi ne ci bitim réew la di ko teewlu wala ñi nekk ci bi biir réew mi it daan teew ci jotaay yu am solo yooyu muy jotaay yoo xam ni ajjuma euh, ja njëkk ci weeru koor yi fii ci jumaay Tuuba Daarul nan ba ca ajjuma ja mujj ja nga xam ni it day ànd ak ab sargal boo xam ne atum ren jii dañu tànn ay jàmbaar yu am solo yu yàgg a jot li lii nga xam ni moom mooy njàngaleem Serigne Touba ci biir réew mi ak bitim réew muy ñoo xam ni jàngal nañ ñu bëree bëree bëri waaye jëfit ay jëf yu am solo ci liggéeyu lislaam bi muy sëriñ Mouhamadou Guèye ñu gën koo xamee ci sëriñ Modou Guèye parcelle waaye it sëriñ Moustapha Lay kooku it di ko ñu ràññee lool ci ay bayaan ci li mu def ci njàngale ak yu bëree baree bëri waaye it ki nga xam ne mooy professeur sëriñ Saliou Salaam moom it di ku ñu xam lool ci yoonu murit ci bind ci ay tukki rawatina ànd ak Cheikh Mouhamadul Mourtada mbakki ak yu baree baree bare yoo xam ne fesal na ko ci xam-xam kon daal bis boobu euh, bis yooyu di yu am solo waaye ajjuma ju mujj yooyu it loolu lépp di am ci teewaayu kii nga xam ni mooy sëriñ Mouhamadou Abdoulahi Mbacke al imam ak teewaayu borom xam-xam yi nga xam ni ñoom ngeen gis. kon muy lu jar a bàyyi xel waaye it di soññee ñi nga xam ne ñooy teew it bis yooyu ak jataay yu mel noonu ak thème yii ñu ci waxtaanee it ñu bàyyi ci xel ci gën koy yaatal waaye gën ko koo euh, jottaliwaat bu baax a baax kon daal lii mooy jotaay yi nga xam ni moom lañ leen doon fësalal di leen sant di leen gërëm ci seen teewlu ak seenu teew ca bis yu am solo yooyu di leen sant di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.